waaleykum salaam wa euh, mu am tomb yu am solo yoo xam ne wax nga ko ci jotaay muy warmaal ak woyof Cheikh Mouhamadou Moustapha it jàngaloon leen ko sëriñ Mbacke Madina jëfe lañ ko jàngaloon Cheikh Mouhamadou Moustapha. waaw Cheikh Mahamadul ñu ko sëriñ Mbàkke Abdourahman waxee nii la ko jàngalee woon maam Thierno Ibra Faati bi muy door a dem sëñ Modou Awa Balla ñëw fii ba mu ko dénk ba mu ko jaalee waxtaan ak moom ba noppi ba muy dem daf ne ko na nga àndeek ña fa nekk nii luñ am na ko bokk ak ñoom luñ am nga bàyyee leen ko te ñu añ ci sa doole di reer ci sa der loolu la Cheikh Mahamadul Moustapha di nga ko suñu Moodu Awa Balla war ma ji sëñ Mbàkke tudd léegi ci bokk bokk ci li koy defar Cheikh Mouhamad Fadel mi nga xam ne fu Cheikh Moustapha nekkoon ci jamono yi ñi yi sëñ Tuubaa di nekk ñoo bokk bokkoon nekk boole woon na ko ci yiy defar yoonu murit ndax waxoon na ne ragal bu amee yàlla lañuy ñuy ragal warma bu amee ku baax lañ koy jox wattandiku bu amee ab saay-saay lañ koy def kon noonu la waxoon ne moom it noon la ñuy def rek bokk kon sëñ Mbàkke ñi ngi sant bu baax ci waxtaan wi di sant bu baax ci doxalinu sët yi mu mel ni am na mbokk mu war a jàllale ñi fi teew sëñ Mouhamed Mbacke it mooy wax ci turu yi waaye gannaaw waxtu wi dafa mel ni li ci des bariwut dañoo bëggoon a jox Fallou mu def euh, taxliix bu gàtt rek. aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani xam na lu gàtt rek lay doon. waaye itam li muy gàtt gàtt lépp lu jafe lay doon ndax dongo bu toll ni Fallou njaay nga bàyyi ba sëriñ Mbacké Abdourahmane wax nga ne ko defal taaliq dina jafe lool waaye nag suñ ko tëjee ci ndigal rekk moo mel na ni bi muy tàmbali waxtaan wi bàyyiloo na xel ñépp ne borom bi subhaanahu wa wax na ne nañu ko moytu ci bokk mu mel ni bokk balaa am fawu dencante am te aaya jooju muy wax sunu borom subhanahu wa di ko wax ñu di ko takke sëy dañuy gis ne la ca yàlla jiital mooy na ngeen ragal yàlla kon loola lu ñu war a mën a bàyyi xel bu baax a baax la waaye itam ci biir kàddu yi dégg nañ mu wax ci ne ay bokk day saa yu ture yi yàq ko benn woykat dafay wax ne yëkkatiku jaru ko ndax nee na maa ngi lay wax lii mooy li ñuy wax xam-xam di ko wax am koom di ko wax naataange jàngkat yépp xam nañ ne maska yañ leen maas ci suuf la te teewul ñoom dañoo kawe fa ilmu wal xisbu wal xinaa qad atat wa xarakaatul qabdi fihinna rafaa waaye nee na li ñuy wax réer di ko wax ñàkk di ko waxit bekkoor moo na ñoom day jàngkat yépp xam nañ ne seen masque yépp kaw la féete waaye seen masque kaw yooyu moo tax ñu suufe kon li am solo mooy ñu fexe dundal bokk gi ak nuñ ko mën a dundalee comme waxtu wi nag dafa xocc dañuy tënk foofu kàddu yi rek wasalaamualeykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa di soof suñu nuyoo ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi jaar ak borom xam-xam yi doon def conférence bi tamit conférence bu am solo xam naa du gudd ndax dañuy njëkkanteeg waxtu wi rek jéem a biral leen ci ay kilifa yoo xam ne teewee nañ conférence bi wuy si woote bi nga xam ne moom la daayira Ahfadu Cheikh Serigne Mbacké Madina woote woon muy daayira sët yi loolu kiñ ñu ciy jiital mooy kilifa jataay bi di Serigne Cheikh Gaynde Mbacké teewal fi Serigne Cheikh Mbacke Madina mi nga xam ne mooy kilifa kër gi euh, sëriñ Abo Mbacke Muxtada teew na fi sëriñ Bara Mbacke moom Serigne Mahmoudan Xariloo teew na fi daayiratu ahfaadu Cheikh Mouhamadul Moustapha teew nañ fi ci njiitul Serigne Jili Ba sëriñ Seexuna Silla ak sëriñ Ahmad Mbàkke moom soxna Basakan sëriñ Xaalim Mbàkke ibnu sëriñ Mbàkke Madina teew na fi sëriñ Saalihu Mbàkke ibnu sëriñ Mbàkke Madina teew na fi sëriñ Xaamidul Mbàkke Abdurahmaan bu Daaru teew na fi sëriñ Abdul Aziz Mbàkke moom sëriñ Abdu Kumba teew na fi sëriñ Cheikh Coro Mbàkke ibnu sëriñ Abdu Kumba Suuna teew na fi sëriñ Mbàkke Madina ibnu sëriñ Moustapha Ndiaate teewal fii daayira islaahu daayira bu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke Madina waa kër sëriñ Ibrahima Fari Mbàkke teew nañ fi ci njiitul sëriñ Abdourahman Mbàkke waa kër sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Mouhamadul Moustapha Falilu sëriñ Modou Boussa Dieng teew nañ fi ci teewaayu sëriñ Abdoul Karim Mbàkke taawam ak sëriñ Abdul Xadim sëriñ Fàllu Mbàkke teew na fi sëriñ Abdou Lahad mu sëriñ Abdou Say Lo ibnu sëriñ Daamu Abdourahman Lo teew na fi waa kër sëriñ Abdul Xudus ci teewaayu sëriñ Cheikh sëriñ Cheikhuna ak sëriñ Jili soxna naata moom sëriñ Mbàkke Madina teew na fi sëriñ sëriñ Abdou Mbacke ibnu sëriñ As Guédé teew na fi soxna moomi Mbacke moom sëriñ am Amdi Mbacke Darou Salaam teew na fi sëriñ Xaadim Mbacke ibnu sëriñ Moustapha Abdoul Aziz teewal na fi sëriñ Abdoul Aziz Mbacke moom soxna maami xaayira di xalifa sëriñ Abdoul Aziz sëriñ so Abdoul Aziz sëriñ Jili Mbacke gelongal teew na fi ak rakkam sëriñ Modou Mbacke gelongal daayira sati sëriñ Abdul Aziz ci teewaayu sëriñ Cheikh bu Mbali Mbàkke ak sëriñ Modou Baara Mbàkke ak sëriñ Mbàkke Madina soxna maam Jaara Mbàkke moom Cheikh Abdul Ahad Mbàkke mu sëriñ Ibrahima Amar teew na fi soxna maam Amida moom sëriñ Mbàkke Madina teew na fi sëriñ Xaadim Sarr teew na fi sëriñ Mbàkke Jóob Njekk teew na fi Euh, di beral cant ak ngërëm aussi ci fédération daayira islaahu daara yi ci njiitu sëriñ Cheikh Lo ci loolu itam ñu ngi ciy cité kenn di daayira islaahu daara yi bi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir kër gi ak fédération daayira islaahu daara bu Dakar ci njiitu sëriñ Mamar Jongo dongay tarbiya yi itam teewe nañ liggéey bi def ci pëstéef bu am solo ci njiitul Serigne Mbacké Touré ak lenn ci waa presse bi nga xam ne ñoo doon couvrir yëf yi ba mu tàmbalee ba léegi danañ ci joxe ku mel ne Jant FM di rajo bu Serigne Cheikh Aliou Mbacké danañ joxe benn FM di rajo Mortala Fall ki leen fi teewal Serigne Mbacké Seye danañ joxe Zik FM ci teewaayu Serigne Ibrahima Tine Euh, danañ fi joxe aussi euh, site internet istikhama point com suñu Abdul Baaxe ja jiite ko site wilaya point org aussi teew nañ fi ci njiitu suñ mbàkke say ak suñ mbàkke Fall kon xam naa bu fekkee amut kilifa wala benn organe de presse boo xam ne fàtte naa ko loolu mooy li kilifa yi ne woon nañ ko jàllale ci ay cant alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa saxbihi tawi ridwaani wa tamkin mbokk yi jullit yi fi teew mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangub sang yi sayidina muhammad sallallahu wa sallam noo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu daayira bi nga xam ne moo lëkkale sëti sëriñ Mbàkke Madina yi di leen nuyu ci turu daayira bi nuyoo bi gën a tedd muy nuyoo lislaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu it seen waaye ci barab bu tedd bii di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak cant gi ki nga xam ne moo toog ci jataayu sëriñ Mbàkke Madina muy sëriñ Seex Mbàkke Madina ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar di ko ndokkeelit ci bis bi nga xam ne moom lañuy waajal suba di ci fàttaliku ku baax kooku di ko ci ñaanal ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko ci jataay bi te wéral ko te kàttanal ko ba li muy yéene liggéeyal waajuram wa yéene ko liggéeyal sëriñ Tuuba ci keppaar ci keppaaru waajuram suñu borom doole ko kàttan ak wér ak man ba man koo àggale ci ni mu ko bëggee te mu ànd ko ak mboolem njabootu sëriñ Mbàkke gépp góor ak jigéen ànd ko it mboolem taalibe yi aju ci kër sëriñ Mbàkke Bànna gépp ginnaaw ginnaaw loolu nag li waral kàddu yi te kàddu yi gàtt lay doon ndax xataay waxtu wi ak guddi gi mooy leeral rek lenn ci li nga xam ne moo waral daayira bi ñu taxawal ko ndax ku dégg ne sëti sëriñ Mbàkke Madina yi ña ngay daje ci kër sëriñ Mbàkke Madina dafa def ay réunion xëy dana laaj wala dina bëgg a xam lu waral seen daje boobu loolu moo waral daayira bi di leeral li nga xam ne moo waral ñu sos daayira bi la ko waral nag la ci jiitu mooy ataaruf mooy ñu xamante comme ni nga xam ne noonu la ko suñu mbokk mi ubbeewoon ci aaye bu tedd boobu naa ko min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu kon dafay mel ne taaruf mooy xàmmi konte lu war la ci jullit ñépp wala ci doomu adama yépp rawatina ñoo xam ne sunu boroom daf leen boole ak bokk te ci biir xamante googu lu baree bari ci ay njariñ def cay mën a juddoo lu baree bare ci ay ndénkaan yoo xam ne sunu boroom dénk nañu ko te digal ñu ko ñu war a sàmmoonte ak moom dana mën a sababoo ci xamante googu bokk na ci lim ñu digal ci jullit ñépp ñu doot benn boole seen bopp te mooy wa'tasimu bi hablillaahi jamii'an wa laa tafarraqu loolu euh, dana bokk ci li koy yombal mooy xamante bu ko santaane sante jullit ñépp nag kon dafa rawati ñoo xam ne dafa leen boole ak bokk kon loolu rekk war naa mën a tax ñu sos daayira bi kon aaya boobu li muy tekki rek mooy nañu boole suñu bopp def ko muy benn nekk wenn say bu ñu takk ba mu dëgër di xàccandoo di dóorandoo loolu mooy li nga xam ne bu ñu ko defee dana tax dara du mën a jóge ci biti dugg ci suñu biir di ci dugal lenn luy indi ak yàq ci bokk gi su boole amee rek loolu dootul mën a am te al mi lil mu'mini kal bunyaan yasuddu baax baada kon ay jullit dañoo war a boole seen bopp ba mel ne miir ndax ba mu nekkagul miir foo fekk ab birig bu la neexee ne ne ko cas yóbbu ko fu mu la neexee nga teg ko fa waaye ba ñu booloo jàppaloo ba dëgër lu ñëw fa leen di bàyyi kon booloo lu ama am solo la lu am njariñ la moo tax itam booloo moo tax lépp loo xam ne bëgg nañu ko taxawal wala ñu bëgg koo sottal ci suñu mbiru àdduna wala suñu mbiru alaaxira ci booloo googu dana ci mën a jàppandee ndax eh, àdduna lu ñu fi taxawal lu nekk eh, ñeent yi rek du ca génn ndax benn mu doon loo xam ne xam-xam moo koy sottal wala loo xam ne xel moo koy sottal wala loo xam ne alal moo koy sottal wala loo xam ne doole moo koy sottal léeg-léeg it am loo xamante ni faw du mën a ñàkk ñeent yooyu dajee su ko defee nag su booloo amee rek faw biir mbooloo moomee lenn lu ci nekk ci yi ñu tudd dana am ñu ko ca suñu borom baaxee ba tax na bu ñu booloo rek lépp loo xam ne bëgg nañ koo taxawal ci àdduna wala ñu bëgg koo taxawal ci seen mbir yi ëllëg loolee dana mën a sotti dana mën a jàppandi kon booloo gi lu am solo la euh, booloo gi itam mooy xamante googu nga xam ne moo waral daayira bi sosu bokk na ci li li xam ne danañ ko ca mën a jële mooy li suñu mbokk mu baax mi doon waxtaane léegi ñu di ko sant bu baax di ko gërëm bu baax ci xam-xam bu leer bi nga xam ne andil nañu ko tey te mu doon bind bu am solo boo xam ne ku xamutoon tey li ak bokk di jariñ xam nga ko tey koo xamante ne it xamoon nga ko sax sa xam-xam yokkoon na ci tey kon jërëjëf Mbàkke mu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla sunu boroom mu guddal saw fan te yokk sa taxawaay te yokk sa xam-xam te leeral ko te barkeel ko ba li nga xam ne yéen nga ko liggéeyal sa waajure yéen nga ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci toolab lislaam bi suñu borom dimbali la ba nga mën koo àggale te bu ci am benn gàllankoor sa taxawaay rafet na lool ci dëkk bi ñëw nga it fii nga ko war a defee ndax ñu ñëpp xam nan li nga xam ne moom la ñu séq ak yow te sa waajur séqoon ko ak Sëriñ Mbàkke Madina ñu bokk lépp ba noppi kenn ku nekk xamoon la nga bokk ak sa moroom daa ko sàmmonte ak moom a ah, ba tax na it la ëpp ci ak njabootam mu féetal leen ci biir kër gi loolee yéen a ngi koy rafetal eh, yéen a ngi koy sàmm kon duñ def lu dul ñaanal leen ak sant leen ci taxawaay boobu nga xam ne yéen ngi koy taxaw kon eh, thème boobu doon tem bu am solo te ñu dégg li nga xam ne sëriñ bi leeral na ko ci ci ay njariñ yu ci mën a amee euh, bokk na ci lii tax mu mën a am ci biiru bokk mooy xamante kon bu xamante amul jokku mbokk du mën a am te jo jokku mbokk nag ñu ko sëriñ bi waxee rek doon na loo xam ne lu am solo la te bari ay njariñ ndax bu dul waxuma la liñ ci mën a jëlee ci njariñu la ëllëg alaxira waaye njariñu àdduna li nga xam ne mën nañ ko cee euh, amee rek jar na di ci xëy guddi ak bëccëg te mooy jokk bokk maanaam dana taxa gudd fan comme ni ko sëriñ bu waxee dana taxit boo amee wërsëg sa wërsëg boobee suñu borom def ca barke euh, dana taxit maanaa dugg aljanna euh, dana taxit euh, gudd gudd fan dana tax maanaa sa wërsëg yaatu dana tax gudd dugg aljanna kon loolu lépp lu ci nekk Euh, suñu borom leeral na ko ci alxuraan yonente bi sallallahu alayhi wasallam andi ko ci ay xadis yu baree bari yu wuute te yu ci baree bari sëriñ bi jaar na ci xay na bañ a guddal rek mooy tax euh, du jarñ cee jaaraat waaye bari na luñ ca waajaloon waroon ko leeral bokk yi waaye mel na ne ki ñu jiitu woon euh, lu ci ëpp leeral na ko kon jokk bokk lu am solo la ndax yooyu rek leen lu ci nekk rek jar na di ko di ko def jar na di sàmmonte ak moom ndax bokk na ci li nga xam ne dana ko waral maanaam mooy njariñam mooy jokk bokk dana tax nit ki imaanam mën a mat man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fala yasir rahima kon bokk na ci li tax nit ki imaanam mën a mat sëkk mooy muy jokk ak bokk te di ko rafetal jokk bokk nag du dara comme ni mu ko leeral rek mooy al ixsaanu ilayhim ila al aqriba wa isaalu maa amkana ilayhim min al xayri wa dafau maa amkana ila xanuhu min al sharri kon mooy di rafetal jëme ci ñoom te rafetal googu sunu boroom sant nañu ko ci ay barab yu baree bari wa abudullah wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba kon eh, ak bokk lu ama am solo la ba tax na kon ñi ngi ñaan rek suñu borom ginnaaw bi ñu baaxee ñu teewe jataay bi ba déglu li nga xam ne sëriñ bi leeral na ko suñu borom defal ñu ndimbal ba bu ñu fi jógee lépp loo xam ne roxtal na ko fi ci ci ci ay kàddu ñu mën koo fab te mën koo jariñoo kon jataay bi li nga xamante ni euh, mooy xamante gi rek kon bokk na ci li nga xam ne moo waral mbooloo mi ñu sos ko ñu koy xamal képp koo xam ne déggoon nga ne sëti Sëriñ Mbàkke Madina yi ña ngay dajee ca kër gi di def ay réunion nañu xam ne kon lañ ci jublu mooy ñu xamante ndax xamante googu ci la jokk gi di mën a amee comme ni ñu ko waxe ñaareel bi mooy ginnaaw bu ñu dajee faw du ñàkk ñu def ay ñaan jëmale ko ci ki nga xam ne mooy suñu maam ju baax jooju di sëriñ mbakk Madina te ku ne xam ne ne ñaan euh, lu ama am solo la di ko def di ko jëmale ci ñi nga xam ne dañooy jiitu ndax nit ki boo xamante ne jóge na fi activité léppam day day dagg maanaam daraam dootul dox lépp loo xam ne jiitulu ko woon ci lu baax loole su ko fi bàyyee perte na ko dootu ko amal njariñ ba mu des rek ñett yi mooy yi nga xam ne su ko fi bàyyee dana continuer di jariñu ca ñett yooyee bokk na ci mooy xam-xam boo xam ne bàyyi na ko fi nit ñi di ci jariñu nga bind ab téere bàyyi ko fi nit ñi di ko jàng wala ay fab ay téere xam-xam móol ko bàyyi ko fu nit ñi di ko jariñoo wala nga gas ab teen bàyyi ko fi nit ñi di ca naan di ca jariñu wala nga tabax jàkk ak yu mel noonu mooy sadaqa jaariya wala nga bàyyi fi doom ju baax joo xam ne yaroon nga ko jàngal ko teg ko ci yoonu siraatul mustaqim mu di la bàyyi xel di la fàttaliku di la ñaanal loolu bokk na ci li nga xam ne njariñ la doon loo xam ne du dog mukk waxtu wu nekk dafay fekk nit ki fa mu tëdd di ko jariñ te mooy ida maata ibnu aadama in qataa amaluhu illa min thalaasin ilmun yuntafau bi aw sadaqa jaariya aw waladun saalihun yad'u la kon lekke bàyyi njaboot lu ama am solo la ndax dana tax waxtu wu nekk nit ñi seen xel di nekk ci yow dana tax it ngay mën a jariñu ci ñaan yooyu nga xam ne dana la ko ñaanal te ñaan yooyu it dana tax nit ki ay darajaam ci àllaaxira di yokk waxtu wu nekk waxtu woo xam ne njaboot gi mu bàyyi ñu ngi koy fàttaliku ci ñaan ñaan googee dana yokk ay darajaam ndax dana toog ci biir àjjana jekk-jekk gis ay darajaam di yëkkatiku te mu wóor ko ne daraja yii kat jëful ci àdduna jëf joo xam ne dana tax darajaam yi di yëkkatikoo nii mu yëkkatikoo ba daf koy jaaxal ba mu laaj lu ko waral waaye dan naan ko la ko waral mooy doom ja nga bàyyi wala sa sët ba nga bàyyi moo lay jéggalul suñu borom di la ñaanal kon loolu bokk na ci li nga xam ne moo waral ñuy raje mooy ñaanal suñu maam ju baax ju tedd jooju ak it di mën a fàttaliku ay jikkoom ak meloom ndax bokk na ci ñi nga xam ne fàttaliku seeni jikko ak seeni melo dana tax suñu borom di wàcce ci ñun yërmande ndax inda zikri saalihin tatanazalu rahma te amul sikk sàkka ci ñu xam ne sëñ Mbàkke bokkoon na ci gaa yu baax yooyu làmboo na it ay jikko ak melo yoo xam ne benn buñ ci jël rek euh, mën nañ cee euh, jël euh, di ko jàngat fii ba déwén ñu jëlaat beneen jikko kon li am solo mooy liñ li ñu ci dégg ci ay jikko te sëriñ bi leeral ko ñu fexe ba jéem a jaar ci tànk yooye te bañ a yem ci rek ne sëriñ Mbàkke mooy suñu maam wala sëriñ Mbàkke mooy suñu baay loola amul solo kon li am solo mooy xam ne nit ku baax la woon nit ku jaamukate yàlla la woon nit ku tabe la woon nga fexe ba jikko yooyee nga jéem ko caaroy ba boo ko dabatit al ala kulli xaayan bu gestoo dana la seen ci ginnaawam kon xam naa ne waxtu wi dafa dafa xat waaye amoon na yit lu ñu bëggoon a leeral tuuti ci li tax njabo njaboot gi boole seen bopp mooy dañoo am euh, yitte ci liggéeyal seen maam jooju mooy Serigne Mbacke Madina ba tax na bari na yoo xam ne euh, nisir nañ ko ca am yéene def ko ngir liggéeyal ci seen maam jooju muy Serigne Mbacke euh, la ci jiitu nag nga xam ne mooy projet bi jiitu ñu war cee ñu war cee taxaw pour pu taxawal ko mooy lu mel ne ki daara daara alxuraan daara joo xam ne dañ fay jàngale alxuraan ak xam-xam. loolu bokk na ci mébét yi nga xam ne daayira bi mébét nañ ko ba jot nañoo dem ci kii Serigne Cheikh mi nga xam ne moo ko fi toogal ba defoon ca moom ak moom waxtaan ba mu rafet rafetlu ko ba wax ne suñu demee ba jublu ci ba war koo taxawal barab bi nga ko war a taxawale dana ñu ko fàggul kon loolu ñu ngi koy xamal mbooleem koo xam ne sëriñ bi sa waajur la muy góor ak jigéen ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci moom te yaakaar ko ñu leen xamal ne loolu bokk na ci suñu mébét te fas nañu it balaa yàgg danañ ci e, dox ngir taxawal ko ba tax na kon ñu ngi taalal suñu loxo képp koo xam ne bëgg ngaa jàpp ci loolu saa yoo yégee ne tàmbali nañ ko rek ñu ngi di cay woo di ci sàkku sa sa sa ndimbal ci gépp ci ma anam goo xamante ni mën nga ñu saa dimbalee ba loolu taxaw te ku ne xam ne liggéeyal sëriñ Mbàkke nag euh, dara gën dara maanaa gënalu ko ca euh, liggéeyal ko ci alxuraan ndax loolu mooy melow wi nga xam ne ak jikko ji nga xam ne ku tudd sëriñ Mbàkke rek sa xel dana dem ci alxuraan ak jataay boo ko mën a tudde kon yaakaar naa ne buñ ko liggéeyalee ci alxuraan danañ mën a rafet njort ci ne liggéey boobee dana ko gërëm te dana sedd xolam kon daal lii mooy li nga xam ne mbokk yi neewoon nañ bëggoon nañ ko leeral mbooloo mi bañ xam li waral seenu seenu jataay sàkk woon ci sama jëmm ju xeebu ji nga xam ne ku tëli la ku lott la ci ma jottali leen ko di sant bu baax mbokk yi fi teew yépp ak mbooleem presse bi fi teew yépp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wa ñaan yàlla ni ñu ko bokkee teew mu mu defal ñu ndimbal ba ñu teewaat ko déwén te kenn bañ a manqué ñu ànd ànd ak wér ak wërsëgu yaatoo yaatu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu bismil maa ngi jóg ngir marsiyaal sëñ mbàkke moom ma diina si rijaal bismilaahi maa ngi jóg ngir marsiyaal sëñ mbàkke moom ma diina si rijaal dunyaay këru naqarte dip waraa kon waraat na kuy jullit ci waaju baaxoon